panneau publicitaire yu ñuy caxat-caxatee magasin yu ñu lakk ay tali yu bari ay dégâts xar kanamu Ndakaaru di wane doole jéeye yi nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko démb épisode yi bëri yu ñu mën a lim ci procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko askanu Sénégal di ko ñaawlu jamono ji li ni mel waa Mermoz di ko firndeel. foofu amoo matukaay bi ngay jëlati parce dangay jékki-jékki rek gars di fees say bët. mënoo lu dul wàccee sa bunt xaar xaar yàlla waaw ah, metti rek parce que ñoom ñu ñuy yàqal ni yàquñu ko pour ñeneen ñi yàquñu ko pour parce que fii ay employeur ñu di daan doole ñoo fi nekk. fii ci Sicap Baobab xale bu góor bi teewee na bi ñuy tàll bile auto administratif alfa Ndiaye du ñu nettali bile jëya. waaw mbir mi démb dañoo toog après gars yi ñëw ñi waroon laq affaire bi quoi. ñëw ba nii teg fi ay barrière affaire yooyu policiers yi ñëw ñu jot taal quelques affaires après jubal côté jet d'eau par la suite ba ñuy jubal lañ gis oto AD bi di di génn quoi après ci lañ booyee wàccee chauffeur bi après commencé ko taal commencé taal oto bi waaw après mais chauffeur bi dafa dem ba ci policiers yi yëkkati loxo yi après gars yi dugal ko ci oto bi quoi. responsabilité yi nag ñëpp ñoo ko bokk bu ñu sukkandikoo ci suñu interlocuteur bi lee. na nga ci am part de responsabilité. comme ni may waxee rek ma ne révolution révolte révolution yëpp mën na nekk mais nañ ko def sans la violence. on va pas laisser le pays ñu jël ko di ko yàq. benn fan ginnaaw événement yii lee lépp nag delluwaat na ca nu mu meloon dégâts matériel li jamono ji kenn mënagu ko xayma perturbation yu ñu nemmeeku ci wàllum koom-koom bi naka noonu chamboulement bu koom-koomu mim réew ak désolation bu mag bi nga xamante ne ñu yàqule am nañ ko.